la daal di buur campagne ci diwaanu ndakaaru ak présentation jëm ci programme am bi nga xamante ni bi rek bëgg na koo tënk ci ñetti pàcc bokk na ci daara ji wàllu ko tool bi itam li nga xamante ni bi rek moo ñeel penc mii daa ngeen ko taw leer li eh, ci jotaayu xabaar yi daa ñu àddu itam mbokki ci jotaayu xabaar yi wax ci lu soxal caravane bu coalition Diomaye président ca diwaanu eh, dëkk boobee di eh, mbuur nga xamante ni bi daanaka rek dañu ko cong cong yu méttee métti ba gaañ fa ñu bëree bëri mu tuuma ki nga xamante ni bi rek moo di Oumar Youm di kan euh, euh, wala sax coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar euh, gis nañu rek ne jàpp nañu ne moom moo tax ba loolay daal di am ca diwaan ba démb la woon ca caajaay leer li ci kanam tuuti lay doon dinañu àddu itam mbokk yi wax ci lakk-lakk bu metti bi am ni ki démb ci gaaw gi bi juróom benn waxtu ci fajar gi jotee ca marché bu Tivaouane Pël foofee nag xayma nañu du toll ci fanweer ak ñett ci ay cantine yu lakk ba jeex tàkk ci koppar ba ñu koy xaymawe itam toll na ci ak ñent ci euh, million ci suñu euh, xaalis loolu nag jaaykat yi ñoom ñu nga ci njàqare wante ba tey ji xamaguñu lan moo ko waral kii jiite bokk moomel bu ni mel di Momar Soxna Diop demoon na fa leer li ci kanam tuuti lay doon yi ponk mbokk yi bu ñu ko faram fàccee xibaar yi day daal di buur bi sim la ñu yaatal sant leen gërëm leen mbokk yi di safa di bàyyi xel leeral TV xibaar yi dañu koy tàmbale ak lu ñeel campagne présidentielle atoup 2024 xam ngeen ko candidat yi ñu nga ca mbedd yi ngir mën a daagaan baatu askan wi ci diwaanu Ndakaaru la nekkoon moom Serigne Mboup di candidat itam. démb la ko buur ci capital bu Sénégal ak programme boo xamante ne bi rek jot na ko fësal tënk ko ci ñetti euh, pàcc bi ci njëkk bokk na ci daara ji maanaam lekkool bi ñeel nasaraan se ak litam euh, lii di wàllu ko diine gi tool bi ñeel wàllu ko liggéey ak itam gouvernance ñeel wàllu ko penc mi yaatal dañ ci teewlu kii topp boobule candidat euh, Al Amine Senghor ak ñaañaka sëriñ dafa daal di soppaliku ab professeur université ci gëtu ay militant ay invité am maanaam ay ganam naka noonu tamit taskatu xibaar yi mu jàkkaarloo ak bi léeg écran di fësal li nga xamante ne moom mooy programme am leeral ko ci anam yu mucc ay programme boo xamante ni jàpp na ni moom moo mën a yóbbu Sénégal ci kanam mu teg ko ci juróomi ponk. bu ci jiitu mooy ànd nawle dañ ne sénégalais yépp a yem nañ fexe ba yemale sénégalais yi. nag ñu ànd liggéey liggéey bu rafet jariñante te wàññi wax ji ak politique bi basé ko nag ci savoir xam-xam mooy daara ji le travail mooy tool bi ak penc mi ci jëm ci wàllum koom-koom mu am ci pàcc bu am solo boo xamante ni moo ngi ko cay daal di bàyyi daal jàpp ni fii war na cee teg juróom benn pôle économique yoo xamante ni dafay nekk ci gox goxaat yi ci biir réew bu Sénégal te loolee mooy firndeel développement territorial. il faut que mu def décentralisation bu baax ak aménager territoire ba ku ne sa war a dëkk fa nga dëkkoon muy Dakar ak Thiès dañu am pôle Diourbel Louga am seen pôle. noonu la ko koom-koom ci réew mënuñu ko wax fekk lu jëm ci wàllum dem ak dikk bi yombul sëriñ Mboup fas yéene taxaw tembe ngir jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci dem ak dikk bi. ñu saafara ko. ngeen xoolee carte bi ni tëddee am na ay stade ko fa tegee yaa ngi région bi yëpp pôle trente quarante minutes nga dem lu jëm ci wàllum diplomatie. ak li nga xamante ne moom mooy aar tamit jëfandikoo am am bi nga xamante ne am nañu ko naka noonu tamit ndaw yi ci boppam bàyyi leen xel jigéen yi tamit fàttewuñu leen ponk yooyu yëpp mu ngi ci programme candidat bii loolee moo nekk taxawaayam mu cay daldi woon ak askanu Sénégal ngir bésu ñàkk fukki fan ak ñeent ci weeru mars bu ñu demee ca bañ gàccee ñu tànn ki nga xamante ne moom mooy yóbbu réew bu Sénégal ci kanam te moom jàpp na ne moom kot mu ngook Al Amine Senghor ak ñaañaka kon nag jàppaleen ni boobule candidat di Serigne Mboup moom nag xaar nañu ko ca diwaanu Touba nga xamante ni bi rek dem na fa ca diwaanu Linguère itam jaar Daara Jolof wante itam fas yéene koo jeexale ca diwaanu Mbàkke di ngeen am xibaar yi ci nu mu gën a yaatu ak ñooñee toppal ñu ko ci yeneen i jotaay lay doon dañu àddu mbokk yi ci xibaar yi ba tey wax ci wàllum politique ak jàmmaarloo gu métti gi am ca diwaanu Mbuur diggante ñi fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar gannaaw ba ñu doon amal ndaje ngir lancé seen campagne ni ki démb ca diwaan bu ni mel loolu nag bi ci euh, ñi nga xamante ni bi rek ay kilifa la ñu dugalee seen loxo ci la ñu delluwaat ànd ak dal ñoom nag daanaka euh, kii di koordinateur bu départemental Benno Bokk Yaakaar Oumar Youm ca diwaan ba moom daal jàpp na ni jot na ñu daal di boole seen doole ngir bu ko defee ñu am ndam bu yaatu ak seen candidat boobu la di amadu Ba reportage suñu ndaw ci diwaanu Mbour Omar Ndiaye ak Babacar Thial stabilité ci ay coow yu metti la leader coalition benn Bokk Yaakaar lancé seen campagne tey gannaaw réunion bi nga xam ne ñoo ko doon amal ci diwaani Kokobir. moom coordinateur départemental ba di maître Oumar Youm nee na dara waralu ko lu dul ay yaram yu tàng. da ngeen xam ne ay gars yu namante woon rek la ñu xam ne. olof njaay ni ma ko waxee ay kuy yu bari bu ñu bokkee mbalka faaw nag bu ñuy naan mu am bruit nag lii dafay wane doole Benno Bokk Yaakaar doole coalition Benno Bokk Yaakaar. ci loolee moom sax dikkaat na ci naqarlu li nga xam te mooy programme yenn candidat yi moom jàpp nañu ci bari sax ay copier-coller rek la ñuy def. candidat yu bari seen programme booy xool plan Sénégal émergent la ñuy recopier am na ci ne bu ñëwee couverture maladie universelle. da koy def couverture santé universelle ma ne ko yow yéex ngaa jóg parce que décret boobu jël nañu ko ba changé nañu couverture sécurité universelle def nañ ko ci programme bi am na koo xam ne nee na dafay changé monnaie bi bu ñu ko changé ni monnaie yooyu mel ci biir Afrique de l'Ouest ak ci monde bi noonu la CFA bi nar a mel day nërmeelu ngir nag gagné département de Mbour ñoom ñoo ñeen li ñuy sàkku rek moo ñu gën a baral li nga xam ne mooy visite de proximité doole li nga xam ne mooy technique seen ci diwaanu Ndiaga Niaw xam ngeen ne sunu jigéen ju baax jàpp jigéen ju man góor Taning Sène maire de Ndiaga Niaw kooku moom lañuy ñuy def marquage à la culotte Diomaye joomaay bu mu gis jant bi gannaaw réunion ba nag ñoom leader benn bokk yaakaar ngi wane ni gannaaw ay jàmm daal nañ ko jeexale benn visite de proximité ak ànd ak leader yooyu yëpp léegi nag dañuy sàkk rek mooy ndaw yi ñu gën a baral seen liggéey ngir rek Amadou Ba am fi victoire bu mucc ayib jógee ca diwaanu Mbuur dañuy dem ca Kaffrine foofe ki fa doon ab maire di Abdoulaye Seydou Sow nekk itam ministre démb itam la daal di lancé campagne am ngir bu ko defee tàmbali eh, lépp rek jëm ci fal seen candidat di Amadou Ba ñoom nag jàpp nañu ne eh, liñ ko gàttandoo ci ay doomi aadama daanaka foo ko nat rek weesu na ko ndaxte eh, lu toll ci ñeenti kilomètre foo sànni sab gët di seen mbooloo mu takkoo takku ñoom ñëpp nag daal di dëggu ngir bu ko defee Amadou Ba am ndam ci jongante falub njiitum réew bi ñu dëkkmal ñu teewlu kàddu yi Abdoulaye Seydou Sow gannaaw bi mu yëkkate yile kàddu bi mu ko tànnee ñëpp xam nañ ñëpp xam nañ fi ma ci féete ak fi ma ci la waalo gën président Macky Sall Amadou Ba lay jàppale su ah président Macky Sall jàppale wutoon Amadou kenn du ma fi gis mais ñëpp xam nañ bu dee xol. ak bu dee xel man lépp demoon na ci amadu bu ma jàppee ci 19 candidats yi Amadou amu ci morom ñu doon wax ñu doon wax jomaay jommi nañu démb parce que gis nañ ni ñooñu président délégué lañ ñu bëgg indil Sénégal ñun président de la république lañ soxla ñu présenté ñu président délégué su toon ci mbaaxu Macky Sall ak yërmande Macky Sall tey mbir mi du demee noonu waaye maa ngi félicité Ousmane Sonko parce que au moins reconnaître na ko nee na grâce à la clémence du président Macky Sall tey ñu ngi fi loolu mooy loi d'amnistie ci assemblée nationale ñoom woote wuñu ko. ñi ànd ak Ousmane Sonko président Macky Sall ne nañu génne Ousmane Sonko ñoom dañoo newoon bëgguñu Ousmane Sonko génn waaye ci loi boobu xam nga ci loi PDS bi dem nañu conseil constitutionnel de mais ci loi bii kenn demu ci conseil constitutionnel am na lu tax mais danañ ko leeral li ñu gis tey ci Kaffrine du lay Sow kese responsable yëpp la ma bëgg ñu jàppante ci noonu élection yi du élection Macky Sall fii ci région bi du élection Amadou Ba suñu élection la ku ci nekk na taxaw boppam dem nemmeeku militants yi dem ci kër yi waxtaan ak ñëpp xool carte yi dañuy àddu ci leneen wax ci loo xamante ne bii ba tey dafa ñeel élection présidentielle ak campagne bi Déthié Fall démb mu ngi woon ca Bignona lépp rek doon fësal programme am jëm ci ni mu fas yéene taxawoo Sénégal bis bu ñu ko tabee def ko njiitum réew ci euh, diwaan bile moom nag jàpp na ne lépp lu ñeel dundin wi rawatina ci wàllu koom xëyub ndaw ñi la ko itam ci industrialisation ak itam cadre de vie lépp rek dina ci taxaw temb bu ko defee Sénégal mën a moomaat boppam comme ni ñu ko euh, bëggee wante itam Bignona du ca des gannaaw ndaxte. nee na rek dinañ fa def ay jéego yoo xamante ni bii rek Bignona dina gis boppam bu baax a baax ci programme boobu la ñu toll ko moom Déthié Fall ci micro Cheikh Pathé Fall ak ay tandoo yi. est une belle zone une très très belle zone une zone qui peut nourrir tout le Sénégal une zone qui sera protégée une zone qui sera accompagnée par l'État daan fi ubbi ay usines de transformation yu wér yi nga xam ni les produits mangue et autres yi nga xam ni am na fi yëpp ñu mën am bi war la production industrielle bi war ba nga xam ay rayons partout au Sénégal on va voir c'est mon rêve le plus absolu nga dugg ci ay supermarché fekk fa ay made in Sénégal importation bi baax na wante defar lu jóge sa dëkk defar lu jóge sa réew moo dàqati li tamit mbokk yi juñu ko ci bopp xabaar yi lu ñeel rek cong joo xamante ni bi amal nañu ko eh, jagleel ko ñi fare ci eh, coalition jamay président loolee mu ngi xew ni ki démb ca caajaay ca diwaanu mbuur ñoom ñi fare ci boobule coalition ñu ngay dut baaraamu tuuma nag eh, coordonnateur départemental bu benn bokk yaakaar di Omar Youm jàpp nañu ne moom moo def lu ni mel ndaxte sax gis nañu ne Ah, boobu lay jàmmarloo am na ay yàq yàq yu bëri yu fa jot a xam comme li ngeen koy séenee ci image yi wante itam ñoo xamante ne bi rek jëlee nañ ci ay gaañ gaañ yu ah, bare bare daan ci dikkaat nag ci nu mu gën a yaatoo ah, ca suñu yeneen i jotaayu xibaar buñ ci noppee dañuy dem ca Tivaouane Peulh foofee xam ngeen ko ni ki gaaw ci guddi boori 6 heures matin benn lakk-lakk gu metti moo am ca marché ba bi ñu xaymawee nag gis nañu ne lu toll ci fanweer ak ñett ci ay cantine ñoo lakk ba jeex tàkk cib koppar bu ñu ko xaymawee itam toll na ci juróom benn fukk ak ñeent ci million ci suñu xaalis jamono ji nag jaaykat yi loru ca mbir ma ñu ngay ànd ak njàqare donte xamaguñu lu waral boobu lay jëyee ñu teewlu ñenn ci ñoom gannaaw ba ñu yëkkate yi kàddu 33 ak benn ak ak ak ak mosquée bi 33 ak mosquée bi lakk ak taabal yi ñu toog gis nga lii yëpp dafa lakk. 64 millions topp na weccet dañ koo bind ki ko bind newu fi damaa xaw a sori 64 topp na ndax koor la ñu ne am na ñoo xam ne dañoo jël banque am na ci ñaar ñu ma xam ku ne jël nga ñaari millions. loolu moom leer na ma koor bu jotee ñu jël banque sar seeni bagage di liggéey loolu moo tax affaire bi métti affaire bi li tax gën a métti dafa tombé koor ñëpp jël banque sars li fi yàqu nii alal moo fi yàqu. marché bi sa place bi ma ci yàqu daanaka dara desul quoi lépp lépp lépp a yàqu dara dara desul bon maa doon jaay comme divers yi gars doon jaay ci marché bi comme li bitig di jaay aussi lépp dama koy jaay aussi dama yor ay machines yoo xamante ne yu neuf machines la yu mag yoo xamante ne mooy wal poobar kaane ay laaj ay jinjeer mixeur yëpp boo ko amoon sama place aussi mais yëpp dara génn ci yëpp jeex na bon xaalis bi rek comme démb bi muy dem parce que dañoo commandé woon ay bagage daana xaalis bi ñu fi bàyyi woon boo xamante liquide la dama ko bàyyi woon fii deux cent trente et quelque la moom boo bu dee ci wàllu xaalis dañu fi bàyyi woon démb bi may dem deux cent trente mille ak weccet moom bi ñuy mujjee éventé ci koor gi nii daanaka dem na deux millions cent dix waaw si bagage yoo xamante lépp bagage la moom. gannaaw ba mbir mi daal di xewee ca marché bu Tivaouane Peulh maire commune ba di Momar Soxna Diop demoon na ca bërëb ba ngir saytu yàqu-yàqu yi nga xamante ne bi rek ñoom ñoo fa daal di am moom jàpp na ni dina def lépp lu mu mën ànd ak équipe ngir taxaw ñoo yi nga xamante ne bi rek nañ ca mbir ma wante itam jot na àddu ci lu soxal marché bu bees bañ doon tabax ba tey noppi na wante jëfandikoo guñu ko lu ko waral ñu teewlu ko moom Momar Soxna Diop. waaw d'abord li may njëkk wax mooy di leen di masawu mooy première mesure d' accompagnement mooy leen di masawu leen di wax tamit nañu xool lii indi daay bi ndax mën naa mi ngi fa ba léegi loolu tamit dafa am solo ak service technique yi danañ demaat foofu xool ci suñu gëstu ndax lii indi woon daay bi mi ngi fa ba léegi loolu mooy première décision à ñaareel bi may wax d' abord na xel yi dal ndax alal dong moo fi moo fi seey na xel yi dal kon bu fekkente ne xel yi dal na waxtaan mën a am am naa yaakaar ne que dana ubbi yeneen bunt yoo xamante ne si dana ci am lu mu ci mën saafara mais tey xam nga incendie bokkul sama compétence incendie mënul am rek ñu ne jël nañ xaalisu mairie bi dem nañ ko fay ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ci marché yi mais suñu njaboot la ñu ci bare lii tax ñu ubbi woon marché bi mooy woon dem jël ñi nekkoon ci marché bu njëkk bi def leen ci marché bi loolu moo tax ñu ubbi marché bi mais marché bi ci ginnaaw daf ci am yeneen yu ci dolleeku yoo xamante ne si taxuñu woon jóg loolu yëpp tamit euh, waxtaan rek. foofu la ñuy des te diwaanu Tivaouane Peulh démb ci gaaw gi yam ak fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum 2024 mairie bi jël na ay jumtukaay yoo xamante ni bi rek école yi dañu koy faral di yittewoo muy école nasaraan seek daara ji muy ay jumtukaay yoo xamante ne bi ñeel na fourniture scolaire ak itam ay matériel yoo xamante ne bi imprimante ca la bokk lépp rek ci xayma talu na ci fukk ak juróom ci million ci suñu koppar boobu leen ndaje ñu ngi ko amal ci teewaayu ñenn ci ñoo xamante ne bi rek faree nañu ci équipe municipale bi wante itam ay jàngalekat ay ndongo ak itam ay autorité coutumière ak religieuse Momar Soxna Diop àdduna ca mbir ma ñu teew teewlay kàddoom. dafa naa loolu mooy jëmale commune. tey donc journée éducation la woon journée boo xamante ne si euh, matériel et équipement lañ fi euh, lañ fi joxe te euh, man li ma jàpp mooy li ci am solo mooy ñu joxe ko. ndax donte am na ñoo xamante ne si li leen gën a loon moo ñu gënoon ko mën a teel a joxe waaye tey eh, jàpp nañ ne que tamit bis biñ ko joxee tamit bis bu baax la ndax président Assane Niang wax na ko léegi bis la boo xam ne eh, dafa tombeek période boo xam ne élèves yi soxla nañ ko donc fi mu ñëwee tamit fu am solo la li ci am solo rek mooy at bu nekk ñu ngi koy faral di def di ñaan yàlla eh, comme niñ ko intégré nii di ci boole daara yi di ci boole aussi équipement parce que dañuy soxla ay photocopieuse yu mag ak yooyu yëpp yoo xam ne bu njëkk dañ daan def ay fourniture rek waaye léegi fourniture et équipement la te ma am yaakaar ne que incha allah euh, danañ ko ñu di ko wéyal ci commune bi ci euh, intérêt euh, élèves yi yi nga xamante ne si ñoom ñoo koy jëfandikoo. jàngalekat yi tamit ñoom it seen xel dal que sóoraale wuñ élèves yi ñoom it xool ci yan condition dañu mën a am ay jumtuwaay yu leen permettre tamit ñoom ñu gën a mën a assurer seen liggéey mais li ci gën a rafetlu tamit mooy léegi depuis quelques at. lu ñuy def dañu ci boole wale daara yi daara yi ñoom tamit ñu ñu ci gis seen bopp bu baax te foog naa loolu mooy jëmale commune bi kanam. tey donc journée éducation la mbokk ñaar fukki simili lii moo boot ci ñetti waxtu ci digg bëccëg bi mbokk yam ak fu ñuy buuree jotax yu xabaar yi ma amoon mbégte doon ko faram fàccee jaajëfal Mariam Soda Diaye mi fare woon ci réalisation bi Alioune Baltara Cissé ci xarala gi xibaar yi daañu dikkaat yeneen waxtu ci Leral TV jërë ngeen jëf.